asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaara di jiital ci nuyo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké Bachir xalif général di Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal mbooleem kilifa diine yépp mbokk yi tey ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum 2020 ñu ngi fii ci daara tey Taysiirul Asiir bu maam bu soo di daaray alquranul karim joo xam ne mu ngi nekkee ci Touba Mbacké ci Baxdaat mu nekk daara joo xam ne dañ fiy jàngale alquranul karim di fi yar yarub lislaam te jii nag nekkoon bés bu am solo ndax ñenn ci ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji li ñoom mokkal alquranul karim ba tari ñu war a génn nag loolee nekk jotaay bu am solo boo xamante nii moom lañ leen fas yéene dégtal muy ndongo yooyu tari alxuraanul karim ci teewaayu ay kilifa waaye ci teewaayu seen moroomu ndongo daara yi loole nag incha allah moom lañ fas yéene ànd ak yéen ci daara ji nga xam ne daara ju am solo la ndax nekk na daara joo xam ne organiser nañ ko te it euh, fonk lool ñi nga xam ne ñoom ñoo fi jàngee muy tànk yi di leen taxaw ci mbooleem fànn yëpp kon mbokk yi daañu taataan euh, kàddu yi kilifa yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi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 وإن كنتم على سفر ولم تجدوا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتقي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 لاهية قلوبهم وأشروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم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 وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تطمارى هذا نذير من النذر الأولى أدفت الآتفة ليس لها من دون الله كاتفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim walaw yuaaqidu allahu nnaasa bima kasabuu maa taraka ala zahriha min daaba min daabatin walakin yuaqiruhum ila ajalin musamma fa ida jaa ajaluhum fa inna allaha kaana biibaadihi basiira bismillahi irrahmani irrahim yaasiin walqur'aani alxakiim innaka la min almursaliin ala siraatin mustaqiim tanziila alaziizi irrahiim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 fa bassiru bi magfirati wa ajrin karim sadaqallahu alazim audu billahi min alseytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim alif lam ra tilka ayatul kitaabi wa qur'anin mubin ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر innaka la majnun law ma taatiina bil malaa'ikati in kunta mina saadiqin ma tanazzalu al malaa'ikatu illa bil haqq wa ma kaanu izan munzarin inna nahnu zan inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu la xaafizun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 la qaalu innama sukkirat absharuna bal nahnu qawmun mas'uulun wa laqad ja'alna fi samaa'i buruujan wa zayyannaaha linnaaziriin wa hafidnaa min kulli shaytaanin rajiim sadaqallaahul aziim assalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh mbokk yi ñoo leen nuyu baax di leen siyaara di leen baalu xaq te baal xaq ñëpp di am mbégte lool ci jataay bi fii ci daara taysirul asir li tahfidil quraanil karim wa tarbiyatil islaamiya wa lil sariya ci mudiru daara ji sayid ma sëriñ Buso yàlla na ko suñ boroom gën a yokk taxaw te gën koo dëgëral di am mbégte lool ci li nga fekk nañ ko fi muy barab bu am solo ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci loo xam luy dëgëral diine la ci ndaw ñi di leen ci ji di leen ci toqi ba suñ màggee nekk ñoo xam ne ay royukaay lañu doon ñun ñi nga xam ñoo teewoon jataayu tey bi nag fekk nañ fi loo xam ne lu daal xel la te it mën nañ koo seere fu ñu jëm muy ndaw ñu dëgër ci alxuraan ñoo xam ne ñoo fekk seenu tari fi ko tàmbalee ca suuratul baqara ba ci minal jinnati wan naas ñu tari ko ci tarin wu rafet woo xam ne si ñuy jaroon na ñu dajale àdduna sépp digtal leen liggéey bi ñu xam ne mbooleem ku jug ngir di wan ne daana moom lam daan def defu ko bu fekkee lii dana xam ne kat ndekete lam daan def maa ngi koy def ba tey waaye itam day fekk nga yóbbu ko ci ñaka daan def mbiram nag yàgg nañ koo fekke lool waaye mu wuute ak ñu baree bari aw doxin ndax moom jëfam daa nekk lool yàlla rek moo ko lal ak liggéeyal lislaam ñaaxee mooy toorub seexul xadim mu di ci jaare ngir sàkku ngër ma sëriñ Tuubaa waaye kon a xam ne ni mu koy defe sell na lool ndax lii mu am ci ay résultat ca tey rek njëkku ci képp ku ko am dey daanaka mën nga koy bàkkoo fu ne di ko ndamoo te it muy liggéey boo xam ne bu doon addunaa tax nga koy defit ñi koy gis tey seere lislaam moom duñ la jam ndax li génn ci dënni xale yi muy képp ko seetaan li jiitu da xam ne lu set la lu wér la ñun ñu ko fekk itam nag képp ko sañoon day doon xale yi tey te ñi ko teewe day kenn koo ci xam ne ni umple na alxuraan amu ci waaye liñ fekk day kawe na seen njort kon sëñ maam sëriñ Bousso xeetu Seydina Mohamed yépp ñoo la amee njukkal waaye ñun ñi xay ñoo fi teew ca teewalee fi ku dib jullit day danañ maase ci di la ñaanal ak di sant ak di gërëm di ñaan liggéey bi suñ boroom gën koo dooleel gën koo dëgëral gën koo setal ca li nga ci daw muy daree seytaane bañ ca dugg suñ boroom gën ko cee soreel waaye li nga xam moom nga ciy séntu muy ndimbalal yàlla rek ak seexul xadim ñu fekk la ci ba lépp lees di ñee nga bokk ci ñi gën a ñee ndax bu dul meññatum àdduna de ñu moom ñee nañ la ba noppi ndax li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ko man taallama al qur'ana wa allama képp kuy jëf-jëf yooyu yaa bokk ci ñi gën loolu rek mat naa ñeey nit kon nag bu ñu la fekkee nga jonjoo ak dongo yi nii wàcce sa bopp xëcc leen bañ ñeme la nga yar leen ba ñu yaru ba ku leen gis ñee leen waaye nga def ci ñoom alxuraan ju set jëmbat ci ñoom diine loolee day bu fekkee mooy li Yonent bi sa alayhi wa waxoon ñun ñi ñaanal la ci lool waaye lépp loo xam mooy ay xéewal yuy tax nga mën a ànd ci ñoom na nga leen bëgg a dëgërale ci nekkuwaayu jamono loole ñu ngi ñaan suñu borom defal la ci tawféex yu kawe kawe te dimbali la ci boppam ndax moom rek moo mat a wéeru léeg-léegi nag mu mel ne luy xaw a yeex lool waaye saa yu ñëwee rek ñoo xam ne liggéeyal yàlla rek a wóor te am nañ yaakaar lool ñu ne itam incha allah lépp lu weesu rek li ci kanam koy dàq ñu ngi ñaan daal mu yàgg lool te suñu borom saxal ko. ñuy ñaan suñ boroom yàgg def nga def ko ay at yu bare bari ñu fi yàgg koo teewe te mbooleem ku fi indi woon doomam lim ciy mbébét ñi mokkal tey nii ñu mel ci alxuraan ñi mokkalugut yàlla nañ mel nu ko raw waaye itam mbooleem ku mokkal ba jóge fi yàlla na suñ borom dëgëral ci moom lislaam ba suñ borom di def aw fanam di fanq fii ci àdduna dara bu mu ci soppeeku lépp nekk liggéey boo xam ni bu ñoŋ la woon ca la taxoon nga di ko defit saa yu mën koo gis ñoo ngi sant mboolem ñi ko teewee ñëpp di sant itam parents d'élèves yi nga xam ñoo fi indi seen doom yi ba ñu mën a wattoo nii alxuraan ndax alxuraan moom woyefut dënn bu mu dugg boroom sonn ak lu la jàngalekat ba yërëm-yërëm alxuraan moom mel noonu waaye teewul nag liggéey bi ñu ci def ak xerañ gi ñu ci am ñun xam nañ ko tey mën nañ koo seere te ku nekk de am na mbébitum lii nga def ci ndaw ñi mu defoon ko ci ñoom waaye xëy na tële ko def nañ ko waaye na teewul sant nañ la ci. te ñu ngi koy sant ñu ngi koy seere di ñaan suñu borom defal la ci tawféex gën laa yokk gën laa kattanal gën laa bàyyeeg sa sago gën laa bàyyeeg sam xel gën a wéral cër yi yokk xéewal yi ba lépp loo xam ne bëgg nga ko jëmbat ci islam daal suñ borom fekk li ci ak suñ kam kàttan am naa ñu ngi jéglu lu baax kàddu yi jëf na xaw a bett waaye amoon nañu yéen gën a sant lu gën a kawel yi waaye sant moom comme du doy moom alhamdulilahi rabbil alamin rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi am mbégte lool toog ak suñuy suñ bokki bi suñ bokki bopp muy ñoo xam ne ku leen tudd ci Touba ñëpp xam leen ñu yaroo ci keppaaru sëriñ Habibou Mbacké sëriñ Xaadi Diop sëriñ Habibou Diop ak suñ euh, di Diop mi nga xam ne moom kuñ xam la ci rabita bi ñuy nit ñu baax ay niti daara yoo xam ne yàlla daa dogaloon sëriñ Habibou Diop mii nag am gone goo xam ne da ko fay indi woon mu ci parents d'élèves yi bokkoon ci ñiy tari ginnaaw buñ taree ba noppi nag ñu ñëw bëggoon cee sànni kàddu wax dëgg yàlla bég nañ lool ci teewaay bi ndax dañ koo yéglewutoon moom lañ waxoon dañoo yëglewutoon table bi waaye ñoom tam ñu ñëw teew fi sëñ bi di ku baax ak ñaari rakkam yi ñu àndal kon dañ koy jox rek sànn ci kàddu xam naa maa ngi fàttaliku tax man téléphone sëñ Abibu Jóob mii moom ko njëkk a xëccal ca Dakar muy kuy yàgg bëgg lu baax nag ak ñaari rakkam yi sëñ Xaadim Jóob ak sëñ Xamdi Jóob yàlla leen yàlla guddal seeni fan te mottali seeni yéene asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu loori lool di sant bu baax a baax a baax di sant sunu borom di sant sëriñ bi euh, tey sunu xol sedd na sedd goo xam ne mënuñu ko wax sax ci ndax sedd goo xam ne gi sedd na ko sedd na sunu borom itam ñu ngi koy seereel euh, maam sëriñ mi ndax xemmeem guñ ko xemmeem ak yàgguñ yàgg jëflanteeg moom loolu moo taxoon ñu indi fi xale bi nga xam ne ma nga jóge ca Mali fu ñu wax laani lañ ma ko joxe koo xam ne doom baayam ci ilimaan ya nekk foofu te du Saalum li foofu la ma ko joxe jox gi ma ko joxe mu xemmee moon ci alxuraan rek ndax gis samay doom yoo xam ne maam sëriñ mii laa leen joxoon ñu jàng fi ba mokkal mu dégg seeni naafi la guñ doon def tax mu xemmeem ko lool ba ne ma dama lay jox sama doom bi ma ko joxee it mu jaaxal ma lool ndax déggu dara ci wolof boobu déggu dara itam te xale bu ndaw mu jox ma ko yàlla dogal it ci benn xalaat lu mooy daal di ko si maam Serigne yow kee waxtaanee ak moom jox ko ko xamal ko ne ko daal moom bu fekkente ne mënut a sori lu mën rek na ko jàng njàng bu baax njàngum tëju tëju it moo xam ne bu delloo cee bokkam rek ñu xam ne doon na jàng waaye yaakaaruma woon ne sax mën naa def lii mu def tey. kon tey bi nga xamante ne ba ma dikkee moom mu am ci positif ne ma am naa ci yéene xam naa li nga bëgg daal di koy téye ñeentaat ci la toll defe naa ne yu teg tuuti wala yu manqué tuuti mu mokkal ba tari tey kon loolu ak cant mun a weesu loolu. sama yéene it wax na ak keroog ma ñëwee ndax ba ma dikkee dama ko ne man de am naa ak jaaxle ndax son yi bu laa fi njëkk andi muy ki topp ci sama taaw fi la jàngee ba bind. bi mu jógee sëñ am di Moussa mi nga sama sama rakk moom ju mag. bi ma demee ba mu jógee fa dem ci moom mi fa la yeggalee njàng fa njàng mu rafet ba eh, am see tawfeex moo tax bi nga xamante ne ndinaa naa ko fi moom it keroog dama ko wax ne ko man day yóbbu naa sama doom yëpp ci daara sama sama rangoñ musa yóbbu naa sama doom yëpp ñu jàngi sama rangoñ musa tuuru waaye nag kii dama koy ñeewant lool ndax keneen moo koy jox déggul wolof nga xam ne mel man maa mën a wax ak moom moo koy wane gannaaw dama jooy jooy métti te jii jooy mooy sama xol sedd na lool lool boo xam naa wax moom dama ko mën maa ngi koy bàyyee rek ak sëñ am li mu jot li ma li ma ci bëgg a jot lépp moom sëñ am di Moussa moom sëñ Xaadim mi sama rek la sëñ am di Moussa mi it moom daara ji mag a mag la yor moo yor suñu daara ji moom it mu jàll sànni ci kàddu rek yeggaleel ko ndax sama xol daal sedd na sedd goo xam ne moom wax moom duma ko ci mën a boole tey aousu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi wa bi ahdihim ila yawmi din mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di bu baax te di leen siyaar te di xaq tey jiital ci nuyoo bi saahibul fadila cheikh Mouhamadul Muntaxa ibn cheikh Mouhamadul Bachir mi nga xam ne moo fi toog toogaayub cheikh Ahmadul Xadim nga xam ne tey jii lépp yoon wi ci kilifteefam la nekk te lépp lu ñu fiy def lu aju ci wàllu diine rawat na ci lu jëm ci alxuraan loolee it kenn ku ne xam na ne wàlla ndax moom mooy sëriñ daara bu mag bi mooy bàyyib daara yi kon lii ñu fi doon def lépp moom lañ ko doon defal ci kilifteef mi lañ ko doon defe di yëkkatiwaat nuyoo boobu it di ko jaarale ci sëriñ Omar Tall Bousso mi nga xam ne moo fi jëwriñ sëriñ Mbacke Bousso ndax euh, tey jii dañoo nekk ci ëttub sëriñ Mbacke Bousso kenn ci ay ay jëwriñam di sëriñ maam sëriñ Bousso mii di jàngal garab alxuraan di jàngale garab xam-xam di ab yarekat di ku am tawfeex ci liggéey bi nga xam ne seede si yi ñu fiy seede si tey ay kàngam yàgg nañoo toog ci kanamam di ko seede muy liggéey bu rëy bu mu liggéeyal maamam liggéeyal ko diine liggéeyal ko Serigne Touba ci téere bu tedd bii alxuraanul kërim ni ko sëriñ Habib mi waxe léegi moom ku ñu ràññaa ràññi ko la ci liggéey bi te li ñu ci gën a eh, neex sax mooy pëstéef bi nga xam ne moom la ciy doxee ndax kenn ko ne xam na ne jamono jii nu nekk jamonoy woote la yi wanewu la yi daje la waaye moom loolu daf ko ñorut li ko ñor mooy ne ci téere bi di liggéey eh, lu ko ci yàlla taxu fee xale mu ànd ak wayjur yi gone yi nga xam ne ñoo ko joxoon gone yi eh, def bis bu demee nii woo gone yi ñu woo nga xam ne ki nga xam ne mooy kilifa dongo bi mooy tànn sëriñ daara ba ko ba ko neex euh, ku ñaw ku man alxuraan ngir mu ñëw mu jébbal ko xale bi génn ci mu téyel ko alxuraanu mu tarik min baqara ba mu ne jinnati wanaas loolu kenn ku ne xam na ne liggéey bu rëy rëy la liggéey bu sell sell la sëriñ bi mii ni mu ko waxee léegi sunu mag la di sunu kilifa euh, maam sëriñ mi yàgg na ak moom ndax ba mu nekk ca ndakaaru la doon jël ay njabooti boppam di ku yot te ñoom ñëpp am na ci tawfeex joo xam ne tey jii moo tax bi nga xamee ne Mouhamadou Fodé li mii baayam di xaritub sëriñ Habib mii te moom mu dëkkee ca Mali eh, li ñuy wax eh, eh, yar bu baax dafa am solo ndax fam lay yóbbu yow doo fa jote ndax maam sëriñ mii day ab yaram akum njàngaleem génn na réew mi te moom yaakaar naa lim génn réew mi bariwut ndax euh, ceeneeri njàngam ma ak jeexit ja la mbokk yooyu di gis di ko topp ba jël seen doom indi ko fi ba mu ñëwee it sëñ Abibu it xam ne gannaaw fi moom la ñëwoon jox ko ay doomam lam ci bëggoon lépp mu am ca lu kawe kon kii itam euh, yaakaar ji am ci jox ko ko donte jëpputoo ne sax dana agsi fii mu yëkkati jox ko rek te dëgërloo yàlla waaye alhamdulilahi rabbil alamina yaakaar naa sëriñ Saalum bàcc li ma ca Mali eh, ak bokkam yam fa nekkal yépp tey jii lii buñ buñ jotee xale bii delluwaat fa ñoom danañ xam ne dañ doon làmb waaye daj nañ danañ xam ne it kóllëre gi ñu amoon ak sëñ Habibu eh, nañ ci loo xam ne jàpp ma ne séntu nañ daañ ko ci am ndax alxuraan nun waa Sénégal wala nun waa njaboot Sëriñ Tuubaa dañ ci am tawféex joo xam ne dafa dema dem bañ miin ko ba ba jàpp ne sax lu lu yomb la wala loo xam ne daal defaduñ ko karaama waaye lii karaama gu rëy rëy la ci karaama yi ndax eh, tàmm mokkal alxuraan tàmbalee ko ca bopp fatiha man koo tari ba ba ba saaru naa si jeex ñu naan gag na ci benn gagag yàq na ci benn yàq yàq na ñaari yàq loolu eh, karaama gënu ko rëy ndax jëmmi alxuraan ci bopp mooy loo xam ne lu woyof waaye nag mawhiba la suñ borom moom mm, saa su sa pas-pas sellee sa yéene sell nga jaar fa nga war a jaar boo ko taalee say loxo rek incha allahu moom li lépp daf koy joxe alxuraan mawhiba la ndax amum xel du ko maye ak njàmbaar du ko maye waaye nag pastéef bii nga xam ne sëñ Saalum am na ko mu jaral ko doom ni mu neexe sa doom jege la ni mu neexee nga transféré ko mu génn euh, bët ay frontière euh, dugg frontière bi di jéggi ay ay ay dëkk di ñorox ñorox ba ci Tuubaa gii ngir bëgg lenn muy amu jàng akub yar kooku bëggam kooku fawu rek suñu borom dana ko ci defal tawféex loolu kon moo indi lii ñu leen xamal ne moom jàng na fi alxuraan ci diiru ñeenti at yoo xam ne ay weer yu néew la teg. Mm, te fii la dale alxuraanu karim fii lañ ko dalale baa biñ koy dale li gën a yéeme déggul wolof te teewut njàmbaaru sëñ maam sëriñ fexe na ba loolee lépp gàllankooru ko dëgërloo na yàlla di ci sabablu sunu moom defal ko ci tawfeex ji mu am tey ah niñ leen ko waxee léegi sëñ Abibu bi mu xamee ne wax nañ ko ko gannaaw yàlla dogal na man noo bokk bàyyi sama maga di sama xarit yàlla dogal ma féete leen ci daara ji yu mel nii toujours dañ ciy farala a déggoo man la ko wax ne ma dafa war a tari ma bëgg nga demal ma fa tëyalal ma ko mbaa nga seet ku la doy dana fa dem tëyalal ma ko maam Thierno Dramé mii laa ko jox te it la tax ma jox ko ko it day koo xam ne tànneef la moom dem ci liggéey bi ndax jàng na alxuraan ba mokkal ko bind ay kaamil jàng fi xam-xam majaalis ba jeexal ko jóge fii dem Murtani defaat fa ay tàggatu ci yenn xam-xam yi nga xam ne dafa tuumarange ci dëkk ci réew mi defaat fa ak tàggatu ci wàllu alxuraanu karim ba am fa lijaasa xiraa euh, euh, imaamu naafi amaat fa it euh, jàngaat fa it ba xiraa sapxam yi jàng na ko ba nga xam ne jot ci lijaasa moo ko dese woon kon kooku buñ ko jébbalee ab xale ne ko téyal ko bu ko téyalee ne seede na ci ne am na alxuraan ji rafet na alxuraan ji wér na loola lu wér-wér lay doon ndax kooku moom ci borom daraja alxuraan yi la bokk kon loolu itam dañ koy seedaloo mbokk yi di ko seedaloo eh, mboolem jullit ñi te leen xam ne it eh, alhamdulilah rabbil aalamiina sunu borom de def na taw feex jullit ñi taw feex joo xam ne war nañ koo xam ndax ñu mel ne maam sëriñ mii day ñi ngi jaayante ak seen boroom ngir fas yéene wuti xam-xam ba am ko ñëw toog doomu jullit ñi ngir ñu jox leen ko ñoom ñu defaat ci xam-xam boobee ci ñoom. kon kenn amul layu sama doom daal dafa jàngut ndax lenn ndax bu fekkee yow mënoo jàng itam am na fi ñoo xam ne jàng nañ ba xam lañ war a xam te wan gannaaw àdduna fa yéenee taxaw ngir jihaar ci yoonu yàlla te xamal doomu jullit ñi ndax dëkk bii nu nekk di Touba Serigne Touba dafa ma a wax ne man gimiñ dafa maa jàpp ñu ne ko Mbàkke lu la gimiñ jàppee mu ne li ma gimiñ jàppee de mooy sama dëkk bu sell bee di Touba. damaa ni séeroon dëkk fa di fa jàngal doomu julli ñi alxuraan di leen yar ci diine te suñu borom nattoo ma mën moo faa dëkk waxuma laa di fa jàngale kon képp koo xam ne dangaa def ne maam sëriñ nekk ci dëkkam bii di jàngale alxuraan ngir yàlla ci façon bi mu koy defee nga xam ne maanaam e, e, ixlaas kese la wutu ci aw tur wutu ci ay daraja wutu ci e, àndandoo lu may rek jaayante ngir liggéeyal yàlla liggéey sëriñ Tuubaa kooku dafa mel ne dafa toog toogaayu sëriñ Tuubaa tey jii bu Sëriñ Tuubaa dellusiwaatuñu ci dëkkam bi ci ñi muy gën a euh, wéttalikoo ci ñi muy gën a euh, safoo ca lay bokk kon loolu itam ñi ngi koy bàyyi lu xel julli ñi bu baax rawatina taalibe yi ñu xam ne daara ngi joo xam ne ci daara Sëriñ Tuubaa yi la bokk bokk ci njabootu Sëriñ Mbàkke Buso kenn ku ne xam ne Sëriñ Mbàkke Buso Sëriñ Tuubaa lañ seqoon lépp lu aju ci diine ci loxoom la ko bàyyi woon njabootam gi itam foo yoon woowu lañ jaar jàng nañ ba xam li ñu war a xam fas yéene toog lépp lu waay soxla ci sa diine wala nga soxla ko ci wàllu eh, ci yar ci sa njaboot ñu taxaw defal la ko ci te yàlla rek tax kon jullit ñépp ñu ngi leen di woo ci loolu eh, di leen xam ne it barab la boo xam ne barab bu aajoo ak jàpp la ndax kenn ku ne xam na ne sëriñ daara amul jot bu fekkee day sëriñ daara ba xam la mu war a xam ba noppi nekk ci la mu war a nekk. ndax koo xam ne boo boo bala nga yeewu fajar lay doon boo yeewoo xale yaa ngi la wër nga nekk ca ak ñoom nekk ci ak ñoom ba ba ndékki di jot nga génn dallu as ndiir ndékki delluwaat ca da nga nekk di ca nekk ba tisbaar di jot nga génn dallu as ndiir delluwaat ca daanaka bala nga faa jóge jant soo boo dalloo tuuti nekkaat ca ba ba nga fay jóge tëdd day jot kooku kenn ku ne xam na ne amul jot tey it bari na lu ko war loo xam ne bu ca bu bu mbokki jullit ñi xamul ne ñoom la ñuy liggéeyal bañ jéem a bay seenu waar ci wetam moom itam loolu mën naa sooxe te bu sooxee nag eh, responsabilité jullit ñëpp lay doon ndax liggéey bi fardu kifaaya la fardu kifaaya mooy loo xam ne eh, bu bu ca ñenn nekkee mu wàcc ñu ci des kon jullit ñi ñoom itam nañ xam ne liggéey bii maam sëriñ nekk bu leen ci nekkalee ba bàkkaar ba leen ci waroon na fekk buñ ko defut mu gàddul leen ko war nañoo fexe bu moom itam ñu ñëw jàppale ko bu baax a baax a baax di génn si génn ko si daara ji di xa jéem a gëstu gone yi fi nekk lan mooy seen itte jéem a xam ba xam daara ji ndax am ay dëkkuwaay ndax am na ay jàngukaay ndax euh, am na fajukaay yi nga xam ne doomu aadama def ko soxla yëpp nañ xam ne taalu bi jàng moo ko gën a ajoo ndax moom dañ ko téye ci benn béréb mënta génn jëm fenn kon loolu message la boo xam ne maa ngi koy lancé mboolem jullit ñi fu ñu mën di nekk rawatina taalu bi yi nga xam ne dañoo yaakaar sëñ Tuubaa te sëñ Tuubaa wax waxoon ne xemmeem teefam ak yéenam yëpp mooy dëkk Touba di jàngale alxuraan kon képp ku jaayante ñëw toog di fi jàngale alxuraan rek kooku dafa wut Sëñ Touba ci bëggam googee kooku teel bi yëpp dañoo am wargoru ñëw jàppale ko ci bëggu Sëñ Touba googu mu fas yéene àggale ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom eh, Mouhamadou Fodé mi yéene ji bàyyam Saalum amoon ba indi ko fi eh, yàlla na ko suñu borom defal tawfeex ju kawe njortam defal ci Sëñ Abib mi tawfeex alxuraan ji ñu sàmm ko ba doon fóore joo xam ne lépp lu ñuy xam ci diine mu yéwénal diine da koy mën a xam ba eh, noonu ni ñu waxee ne bàyyam ilimaan la ca dëkk eh, foofee ca réew ma moom mi mu dem ba doon fa ilimaan doon fa xaadi doon fa lamp ràññ ko ràññ ko boo xam ne dafay nekk nekkal fa Serigne Touba di koo xam ne jiwu Serigne Touba wu jóge fii nekk foofee ca Mali lay doon yàlla nañ suñu borom def tawfeex ju baax a baax a baax ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggulu ci kàddu gi xëy na Serigne Habibou dañu ko jox ngir ak mbaaxam ak it comme ñoo bokk dama féete ci daara ji bu fi ñëwee it mu euh, dara jaale ko rek waaye lu ci dëng itam ci sunu doyadi la lu jub ñu ngi koy sant yàlla ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin alihi wa sahabatihi ajmahin mbokk yi kàddu rek laa ciy dugal ya ca jëkk mooy sant leen yéen ñii fi teew bàyyi seen yitti yëpp dikk ànd ak xale yi ñu tari ba mu jeex seen tànki dem ak dikk yàlla na ci yàlla faj seen aajo yëpp ci barkeb alquranul karim yéen ñëpp tàmbalee si suñ maam Thierno Dramé ak suñ Moustapha ak suñ Fallou ak Cheikh Abdou ak euh, Cheikh Abdoul Ahad mi bu loolu wéyee la ca toppaat euh, suñ maalum mi nekk ci daara ji itam di ma jàppale ci xale yi ak ñoom suñ daam ak gone yi mag yi yëpp ñu ngi leen di sant wax ji day gàtt lii de li tax ma di ko def weesuwut lenn ñaari mbir rekk la benn bi gone yi doon tari alxuraanul karim man sama njaboot lañ sama njaboot lañ xëy na buñ koy tari seeni wayjur doyloo nañ ma waaye nag tare gi li ma ci bëgg ñu def ko ci seeni nawle seeni moroom ah, ba seen moroom yëpp xam ne ñii kan ñoom mokkal nañ alxuraanul karim la topp itam damaa waxoon ne jërul kenn di ñëw kenn ku ci ne ñaar ña lay déglu rek doy na ngir ñaar ñooñu feddali la sa sabtari bu ko defee itam eh, ñu sant la yow gone gi man man laajuma sant man sama njaboot la loolu laa wax ba noppi waaye nag gone bu nekkee di nab nabi ci mbir mu méttee métti wax dëgg yàlla ñoom nekk nañ fi ba jàng alxuraan ba mokkal te mësuñoo daw jàng loolu kuy jàngale alxuraan ku ne xam ne xal xale bu mas a toog ci yow di jàng alxuraan ba mokkal te dawul jàng kooku ku am jom la loolu ku am jom rek moo ko man ñaareel bi nag tak mooy li gën a gën a tax ma def ko nag mooy dama nekk fii di jàngale di mu ma fenn ginnaaw bu paaraade élèves yi wéyee seenu jàpp ci daara ji ak it uh, xale yu mag yi nga xam ne ñoom ñoo fi doon jànge ba mokkal alxuraan lu ëpp ay ñaar fukki at ci ginnaaw nga xam ne liggéey bii ngeen fi gis ñoom tam ñoo ko tàmbali woon bu ñaar ñoo ñu wéyee muy parents de yi ak gone yu mag yi fi doon jànge nga xam ne ñoo tàmbali woon lii dafa am nag ñoo xam ñoom ñoo gën a tax may def lii ndaxit dafa am ay mbokki jullit yu baax yoo xam ne damaa yàgg ak lool yàgg ak ñoom lool ñuy jàpp ci liggéey bi nga xam ne ginnaaw yàlla su ma mënee toog di jàngale te demuma fenn mën a am fu xale yi dëkk mën a lekk ba regg naan ba màndi jàng toog jàng ba mokkal alxuraan karim loolu su manee nekk am na nag ay nit yoo xam ne amuñ fi ay doom te wax dëgg yàlla daanaka parents yi sax mënuñ leen fi euh, ñu jéggal ma waaye loolu parents yi dama leen di waxaaleel loolu ndax ñoom buñ ñu fi teewoon tey ñii may sant ñoom dama leen war a sant ndax seeni loxo jógut ci seenu njaboot ñoom parents ñooñee nag moom damay bàyyi ku mel ne sëriñ fallu Galas Silla incha allah dana jaar ci seen tur ñoom ñëpp santal ma leen gërëmal la leen te xaw ne ooma seen pay yàlla mi am seen pay rek yàlla na leen fay ñooña daal rëy nañ fi man lool du mel ne at du ñaari at waaw suñ daal sa bari nañ danaa bàyyi daal suñ euh, Fallou Galas Silla waxal ma leen ñoom ñëpp kon daal lool laa amoon ci lu ma ciy wax ñoom daal ñoo tax may def lii ñoom ñi may jàppale te amuñ fi xale ñoo tax may def lii waaw ndax it waroon na maa woo nit ñëpp bañ teew ma sant leen ci kanam nit ñi waaye ginnaaw man boo xawumaa woote loolaa tax ma ne kon nag naa fexe ba am benn kii rek ñu jàllale ko ci média yi ngir ñoom ñiy jàpp ci daara ji te amuñ fi xale ma sant leen gërëm leen. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëlale woon fii ci euh, daara yi tey si Taysiroul Assir bu maam bu Bousso fii ci Touba di daara yi alxuraanul karim tey jii nag nekkoon bés bu am solo ndongo yi dénge leen ci alxuraanul karim ji nga xam ne tari nañ ko ci tari wu sell waaye it kàddu yi nga xam ne kilifa yi yëkkati nañ ko moom mi nga xam ne nag moom moo di sëriñ maam sëriñ Bousso taxawaayam ci daara ji am solo lool. waaye nag su agsee fii bëri na kilifa yoo xam ne dugal nañ seen loxo ci daara ji di ko taxawu saa su ne di ko jàppale ci liggéey bi ñooñee ñëpp am na kàddu yoo xam ne yëkkati na ko. jagleel leen ko muy sant ak ngërëm jëmee ci mboolem kilifa yi nga xam ne jàpp nañ ci daara ji kon ñu ànd teelu kàddu yi maam Serigne Bousso yi nga xam ne yëkkati na ko doon leen santaat bu baax di leen gërëm ci taxawaay bi nga xam ne amal nañ ko ci daara ji nga xam ne mooy daara yi tey Taysirul Ansir aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa wa ala xayri xadimihi wa ummatihi wa sallama taslima euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ngir jotle fi ay cant yu néew yoo xam ne sax mën nañ ne luñ sopp la mbaa sax farata la ndax nit bu nekkee ci farata ka koy jàppale ba tax mu mën a taxaw farata ya kooka nag euh, taxaw sant ko loolu daal yaakaar nañ ne Euh, farata la ndax jàngale alquranul karim fardu kifaaya la fardu kifaaya boobu nag ñu nekk ña tax ñu mën caa nekk ba léegi ñooñu daal mooy suñ jotaay bii tey kon day cante gi dañuy tàmbalee ci sant yàlla suñ borom tabaraka wa taala mi dogal ci ñun ñu toog di jàngale alquranul karim ba noppi boole ñoom ñu ñu mën a jàppale ak yonent bi sallallahu alayhi ak suñu wasila muy Cheikh Ahmadou baama radiallahu taala anhu mi nga xam ne bëggutoon ci dëkkam bii lu may jàngale fi alquran ni ko niñ koy faral di waxee ne moom bu fekkoon ne am na ab nattu nattoom mooy ñàkk toog fii ci tuubaa di fi jàngale alquranul karim kon nag loola ñun jéem rek euh, jàpp ca loolee nga xam ne moom la bëggoon ci dëkkam bi di ci teg itam sëriñ Mouhamadul Muntaqa mii nga xam ne moo ko fi nekkal tey te bi mu dikkee sumbam bi gën a rëy mooy tabaxal sëriñ bi fii ci Touba université bu mag boo xam ne soo àggee lépp lu metti woon waa dëkk bi ci njàng incha allah dana saafarawu waaye ci tënk ngir mu bañ a gudd santaale way jure xale yi nga xam ne itam bu ñu mënee jàngale suñu joxatoon xale kon duñ jàngale kon ñoom ñi indi xale yi bañ mën a jàngalee ñoom it kon yaakaar naa ne ñoom euh, yayoon nañu cant ndax buñ ma joxatooni xale doy loo ma ba jox may xale kon du ma mën a toog fii di santaate kon way juri xale yi jëm ñoom lañ ciy teg tegaat yi itam nag xale yu mag yi nga xam ne daanaka lu mat fanweeri at ci ginnaaw jànge nañ fi ba sampi kër delsiwaat ci daara ji di ci jàpp-jàpp gu wóor a wóor ba tax liggéey bi ngeen di gis ci image yi muy daara ji fi xale yi tëdd ak mbaar ma ñuy jànge ak jàkka ji ak lépp li fi nekk ba tax ñu mën a dëkk ndax ku dëkk doo mën a jàng loola itam xale yi ñoom ñoo ko tàmbali woon bañ ko tàmbalee nag ay jullit yu mag ay taalibe Sëriñ Tuubaa yu mag yu bëgg yu baax dikk jàpp ca ñooñee nag laa bëgg tudd fii seeni tur ndax ñoom dañ maa yàgg jàppale lool mën naa ne lii may def sax yeex naa koo def ndax ñu bari seeni daara dañuy def ay conférence at bu jot at mu jot ñu sant ña leen di jàppale man nag yàlla daa def li may faral di def conférence bariwul at mu jot dana am ñu mokkal alxuraan damay woo waaye damay wooye seeni wayjur rek ñoom dong ñu jëw déglu leen bu noppee ñu ñaan dem waaye lii nag moom farata la ci man tey moom ma dikk fii wax ko ak lu ma tëlee tëlee tëlee wax kon taalibe sëriñ Tuubaa yu mag yooyee di ay jullit xàqan taaliba xàqan ñooñee nag lay jaar fii seeni tur ñooñee ka ca njëkk mooy sëriñ Abo Sall ca Pikine nga xam ne ba may dem Dakar moom laa fekkoon kon lépp lu liggéey bi jur moom mooy bopp ba sëriñ Mouhamad Guèye ca Parcelles Assainies moom tam bañ demee foofee la bi ñu am ci mbir yëpp moom foofa lañ ko jëlee moo samp daara yi waaye loolu lépp nag su ma nee sotti nii ma ko waxee bàyyi defar yàlla yu mag yi ca lañ bokk na ci ñooñu ku ñuy wax sëñ Taala Saadi kooka nag la ma leen di wax moom jëpp li ma man dong maa ngi jéggulu xam naa ne wax gii ma koy wax moom itam loola gënalu ko waaye lii ma wax rek mooy li am nit daal bu ñu koy defal njekk nag war naa toog benn bis seedeel ko ay mbokkam ak julliti yàlla yëpp ndax sant rek la nit man waaye yàlla mooy fay yàlla ko yàlla fay moom suñu taal saadi diiru fukki at ak juróom ay 2000 nangam ku jàmbaare ci daara yi ku jàmbaare ci daara yi ñun nag lim ñuy defal moom. dañ leen di wax ne rek bokk na ci yi nga xam ne bu jëpputoon ci daara ji daara ji mën naa tas muy ci wàllu ravitaillement ceeb ak dëwlin nag yépp xaalis ak lépp da koy dugal ci daara ji sëriñ Mouhamadou Gueye asalem ay doomam nekkoon nañ fi waaye moom it moo njabootam gi ñëpp dañuy jàpp ci daara ji sëñ Mouhamadou Gueye moom yi sax jàkka ji bi ñu koy tabax la ci njëkk a dugg moom ak ko ñu wax Cheikh Ibrahima Mbacke moom Sëñ Muntaxa mii nekk Parcelles Assainies ñu gën koo neex ñoo xam ci Sëñ Cheikh Ibra Bari muy loxol Sëñ Muntaxa Mbacke ca Parcelles Assainies ñoom jàkk ji bañ koy tàmbali ñoom euh, seen loxo ci njëkk dugg booba seen ak njabootam fi muy Sëñ Mouhamadou Guèye ca Asalem ak Sëñ ibrahim Mbacke ca Parcelles Assainies waa kër Xalilu Jàllo yi ci njiitul suñu woy jur soxna Aïda Sall ak njaboot ga ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn muy ay doomam ak i sëtam ñoom ñëpp seen loxo nga ci daara ji bu wér a wér a wér màggal Tuubaa ma ko sëriñ Baar Fall nekk Sigasoor ak i ñoom it seen loxo nga ci daara ji bu wér wér ñii may wax ñépp nag wallaahi bëgguñu ko leen tudd waaye nag faaw ma tudd leen nag ku ñuy wax Euh, euh, soxna Roqiyatu Sekk nekk Kaffrine moom it yaayi daara ju mag la joo xam ne léeg-léeg day togge aw ñam kafrin karang-karang ci woto yi léeg-léeg sax koor la koy def boole koog wax dëgg yàlla euh, yeneen ndimbal yu mag a mag a mag kenn ku ci ne la muy def ci daara ji bu ma ko tuddoon fii da ngeen di yéeme ay som yu mag lañ la koy yëkkati di la ko jox li ma wax bu dutoon ñoom daara ji dana taxaw ku ñu wax Serigne Moussa Diagne bëgg alquran lool moom it Nord Foire lool bëgg alxuraan lool wéttali ko alxuraan lool ku ñu wax sëñ buubu taw nekk buubu saw nekk Touba gii quartier jàmm gën mooy ca pegg daara ja moom tam moo miir daara ja ku bëgg lu baax la sëriñ Moussa Sarr ca Parcelles Assainies bàyyi daara yëpp ak ku ñuy wax sëñ jagaloo moom it bëgg daara lool ak sëriñ Abibu Jóob mii nga xam ne moom la ab xalem doon tari jóge Mali ñu di ko wax Fodé Bathily sëñ Abibu Jóob moom itam moom euh, waxuma la bëgg daara waaye mu daa sampi daara ak sëñ Cheikh Tidiane Xuma ma nga Parcelles Assainies doon wëllëre waa kër Xalilu jàll yii moom it jàmbaar lool a ah, euh, ñii nag li tax ma leen di tudd na ma leen ko waxe woon àddina boo nekkee ci daara ña cay jàpp ba tax loola mën a taxaw warees na leen sant ndax xam ngeen ne nag daara Euh, dafa diis la ca nekk dafa bari war ngaa dëkkal te dëkkuwaay xam ngeen ne yombut tabaxal nit dëkkuwaay yombut war ngaa dundal xam ngeen ne itam dund yombut lu diis la ci jamono bii ñu toll dund bi moom xameewut daaraak ku yor daara moom bitig ba moom la fa ñëppi jënde ceeb moom la waar daara jënd ceeb moo daw gaak lépp amul dégg nga euh, ku ne xam na ne itam mbaar yu yaatu yuñ mën a toog jàng ba féex ndax am néeg kenn mënu caa jàng ci daara ci ci biiru néeg fanaan la waaye mbaar ma lañuy ñuy mbaar yooyu itam ñii may wax yépp seen loxo nga ca jàng itam daa war a ànd ak jaamu yàlla jàkka ja ñoom ñëpp seeni loxo nga ca kon daal ci gàttal ñii ma tudd fii maa ngi jéggul sax mën naa am danaa bàyyi kenn ndax lu mu bind la tiim ko waaye ñii daal jàpp leen ne ñoom day su ma mënee toog jàngale di mu ma fenn gone yi lekk ba suur naan ba mbandi am fu ñu dëkk fu baax foo xam ne ku ko gis xam ne fii dëkkuwaay la am fu baax fu ñuy eh, jànge muy mbaar yi am fu ñu jaamoo yàlla kon yàlla ak ñii la dund ba moom waxale wu ko ndax eh, Sénégal sax ñu bari dañoo xam mu ne fi eh, ne boo yoroon lu mat 60 personne li ngi leen di dundale mel at tabax na daara fi ne daara la fa gën a doon jafe-jafe mooy ñaar tabax bi du dara am na solo amul solo waaye nag gis nga dundal gi ak jàngal gi moom diis na diisin woo xam ne képp ku ca jàpp ba tax nga man caa nekk war nga ko sant yàlla kon daal ñii ma tudd fii maa ngi leen sant bu baax a baax di ñaan lépp lu ci aw yiw ah ñu bokk ko te di ko seedeel kilifa yi diine yi yëpp di ko ke rawat jiital ca sëriñ Mouhamadul Mountakha na xam ne njabootam gii day li mu bëgg moom sëñ Mouhamadul Mountakha ci dëkkam bii di dëkku sëriñ Touba bi ñoom ñii jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax ak kilifa yi diine yëpp. waaye di ko seetal itam état senegal ndax itam état bi moo jaboote ñëpp ñun ñii jar na ma tudd ko sax du mat 40 ñi ngi jàngale alquranu karim tàmbalee ko ci capital bi ca capital ba lañ ko tax am fa ñaar fukki at juróom-ñaar ci kaw lu yu seer waaye saa yu parents yi dikkee rek fu ñu yem ñii ñu tudd ñoo koy mottali ba daara ji mën a taxaw ba bisub tey jii nii feebar bii fi jaar bi mu fi jaaree ñun ñi nga xam ne yàgg na sax reeda la ciy jàpp waaw reeda la ciy jàpp ndax lan mooy ñu bari sax dañ lay faral di woo di la laaj mbaa lii mbaa laa xam nga nag mag buy wax du àgg ci yëpp waaye daal ñun ñii ñu tudd fii daal ak jur yi ak xale yu mag yi ñooy ñi nga xam ne jàpp jàppale daar yi ci loo xam ne at mu ne ay million nga ca war a financé ci ndim boo xam ne sax du àgg téeméer te am na fi borom daara yoo xam ne macha allah ay téeméer ñaar téeméer dañ ko yor ñu toog fa di dund te amuñ benn problème kon looloo tax ma ne ah euh, ci wàllu état Sénégal itam ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi di def lu baax de suñ yëgee suñ yëgut jàppale nañ suñ daara yi jàpp nañ xalifa général yi waaye jàppale nañ gouvernement bi ndax bu ñu amutoon ni dañuy taxawaalu rek gone yi dañuy taxawaalu rek. am na koo xam ne te dama ne woon du ma ko tudd waaye daal faaw ma tudd ko ndax xam naa bëgg ko sëriñ Mouhamad sëriñ Mouhamadu Mbacke nekk taglu doomi sëriñ Abdou mu Mbacke maatam waa waa dëkk bi xam nañ ko kooku itam ay ati ati at at mu jot dana jàpp ci daara ji jàpp bu mag a mag a mag a man daal li may tiit euh, li ma bind ma jël kenn te yëguma ko waaye ku ma tudd ak tuma ku ma tuddut ñëpp maa ngi leen sant di leen gërëm di leen yàlla ñaan suñ borom yokk leen bañ jël ko bu wér a lu ci dëng ci man la lu ci jub ñu ngi koy sant yàlla suñ borom te xam ne ñii daal amuñ seen fay ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw euh, di sant sëñ Gan falu Garassi la di ko ñaanal barab bi yàlla wàcc fi xéewal ba lépp luy baax ci lu baax ci àddina mu àgg ci mën a am ay teleem ak rajoom ak yëpp di ko jottali rawatina yoonu sëriñ Touba yi nga xam ne kilifa yi fi nekk bëgguñ lu may lu baax lii may wax nag waxaal naa ko sa sa bopp waxal ko kilifa yi diine yi waxal ko borom daara yëpp li may dund moom la borom daara yu baree bari di dund kon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu